ko ubbil bay sa bërëbi tànga mbokki bii la ko ubbil bay sa bërëbi tànga mbokki bii la ko ubbil bay sa bërëbi tànga gul gul yi sa tegal kër gi yàlla na kaay ci kër gi الحمد لله الحمد لله الخالق البارئ نحمده جل على الآلاء بحمد من في الأرض والسماء وهو الأول والآخر والظاهر والباطن القريب أقرب إلى كلنا من حبل الوريد فعال لما يريد لا يحميه الزمان ولا مكانه بكل شيء محيط لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير ليس كمثله شيء أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينذره فهذا من الضلالة وأنقذنا من العمى والحمد لله والصلاة والسلام على الهادي البشير وسراج المنير سيد الأولين والآخرين الإمام العموس رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن خلفائه ومظاهره أجمعين وعن خليفته في هذا الوقت مولانا الشيخ إبراهيم الخيري وعن سيفه المسلول مولاي الشيخ عثمان حفظه الله وأطال بقاء بكي السلام عليكم ورحمة الله بكي فاسي أخي والفاسية bokki tënd wi yëpp bokki Saalum yëpp ak li ko wër bi yëpp mën a jógee ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ndokkee bu baax di gërëm di kontaan ci jotaay bu taaru bi di kontaan loolu itam ci gan yi nga xam ne wuus nañ eh, woote mbokk yi nga xam ne loo rek ci yàlla ñu ngi ndokkee ñëpp gërëm ñëpp di nuyu itam suñu sëriñ Mawlay Cheikh Ousmane hafidahullahu qadasa sirra di kontaan ci moom lool bu ñu ko nuy nuyoo nuyu nañ boolem mbokki yi nekk ci ronam yëpp boolem njabootam yëpp njabootu waaram njaboot baatinam nuyu itam suñu wayjur maama Xadi Fall di ko di ko ndokkeel di itam yaa sira li waral yëpp ci taxawaayam bu rafet ak ci njàmbaaram taxawaayu góor gi mu amee ànd ak jigéen waaye taxawal góor li bay waxoon ne taalib wacc man góor la bu dee jigéen góor la bu dee góor góor la am nañ yaqin ne moom ci góor yooyu la bokk sant yàlla ci loolu ak mboolem ñi koy jàppale yëpp ñoom Mouhamed ñoom Pape tey ñu ngi santaat yàlla bu baax di wax rek li Mawlaaya Cheikh Tiyaan radiyallaahu anhu waxoon ma axwaja annaasu fi haada zaman ila alimin aw ulama yunaqihuuna lahum kutuba alfiqhi min alxashi fiha Cheikh Diallo waxoon na ne nit ñi ak a ñuy yittewoo ak borom wala ay boromi xam-xam ci jamono bi lu tax ñu seggal leen borom xam-xam wala boromi xam-xam yu leen seggal yi ñu rax ci téere fitte yi te bokku ci ndax diine ji kat daa bëri ay réeral ak kat daa bëri ay réeral kat dafa bëri ay fatawa yu def yoo xam ne wéru ci diine Cheikh Diallo mu ne fokk mu benn borom xam-xam bu volontaire wala ay borom xam-xam waaye su ay borom xam-xam au moins mu am benn borom xam-xam bu volontaire te su benn borom xam-xam taxawee la chaque ay borom xam-xam danañ taxaw ndax su kenn taxawee dana defar mbooloo mbooloo dañu ci nekk ay borom xam-xam jub pour lan pour jubbanti yàq-yàq yi nga xam ne am na ci diine ji مولاي شوقي كي وهذا الذي وقع في الفقه وقع ايضا في الحقيقه وهذا الذي نتبرأ منه moo ne cheikhul karim suñu sëriñ wax ne loolu cheikhu tiyaan waxoon doon ko ragal tam am ci diina ji moo am ci xaqiqa bi ñu nekk xaqiqa bi ñu nekk bana luñ ci rax ci mbiru bàyyi mus ko oote mus caa dox cheikhu tiyaan mus ko oote mus caa dox te xool da nga gis ku déglu da nga dégg mu leeral yaa ngi dégg wax yoo xam ne bàyyi mus ko wax cheikhu tiyaan mus ko wax mu leeral yaa ngi gis ay doxalin yoo xam ne wóor na li bàyyi musub doxee noonu cheikh tiyaan musub doxee noonu te bàyyi dina ànd ànd rek lay tekki dëgg bàyyi mu ne koo moom mu continué dox nga toog àndatoo boo jàddee àndatoo leen ku wax ku def lu bàyyi mës sa def àndatoog bàyyi lépp luy xam-xam na tey bii bàyyi ko indi ay dalil yu ñu bàyyi oote parce que li mu li mu oote lu rëy la ne moo tax mu jóg ay lay yu leer nañ ñu pour sàmm li mu waaye ñu koy rax de ngi koy rax moo tax jàmbaar ju mel ñi ñu àndal mënta ñàkk ci pays bi ku xool seetlu da nga gis ne mënu ci woon ñàkk su ci ñàkkoon liggéey bàyyi bootul dara doy waat li ba da koy ñemee jëm ba mu teel a fàttu kafina fii si bi baax جمبار विहार भाई में जम जम बम बता तू करना तेरी नासी बला ترى كان بايو احنا بس احنا كده بايو احنا فإن لم تباركني فعرشي الساقط فإني قد أكثرت في الذنب والزلل بايو من سوما دباتل سوما دباتلون أمنا كوبايد كوني فوق نيو دباتل سو ñewul pour dabatal ma سوف شيز من شورا سما ما توكو دا فاي دفاي دا فاي دام سبحان الله بابا يكون فوك أم كن يوم دباتل سولو أمو در سما شيز دا فاي رز شيز ما توكو أنا سما باي توقع دا فاي ماب لأني قد أكثرت في الذنب والزلل بكار برينا بكار برينا تركز كي برينا يتركز كي بي بي برينا يتركز كي باي او تي برينا نتي بو بوكالي يالا برينا كون فوك أم كن يوم دباتل كون منتنك متبارك واصحب أيها المريد من ينهدك إلى الله أحواله ويدلك على الله مقاله وعليك بمصاحبة من ينهدك على الله مقاله ولمتابعة النبي ومضايه قولا وفعلا باب يقول ne kon maa ngi leen di dénk ànd leen تكتل waajoo xam ne daf leen di tegtal yàlla tegtal leen ak yonentam ak seeni feeñuwaay waaye du ñëw pour def leen yàlla du ñëw ñu yàlla yónni woon ci ñu samp leen def leen ay yàlla loolu jumte la moo tax ñaari point rek ñaari point yi Cheikh Ousmane rek la ci faydu bi loolu su amutoon faydu bàyyi day fuuti ñaari point muy lan ñi yàlla yónni woon ci ñun dañ leen far jàpp leen def leen ay yàlla تيلا كان يونو ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يونان كما يوني دما كو يوني بور ني توك كو تي ديغال يالا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله التوابا الرحيما même ndaw li yàlla yónni ci ñun yàlla ko bu ñuy jégalu ñëw ci yow jégalu ngir comme yaayam leen gën a jege su ñëwee ci yow nga jégalu leen ci man man naa ma jégal leen daañu daw ci yoon pour ca moom waaye ku yéen jégal la yàlla la du ñu doon waaye ni yàlla yónni woon ci ñun far dañ leen far def leen ay yàlla effacé yàlla moom ndax ak tooñ mën na gën a rëy lii ndax ak tooñ gën a rëy lii ndaw lu yàlla yónni ci yow nga far jàppee ndaw loolu yàlla nga effacé yàlla yow est-ce que du ak tooñ loolu a ñu ne xus ci fay guddi ci taalibe yi jàpp ne moom yàlla buy dox la ku nekk ci taalibe yi jàpp ne moom yàlla buy dox la loolu tam gàtt gàtt bu rëy la ci pays bi te wallahi wallahi bu ci nekk bàyyi def ko leeral wax ci ay dali yu dul jeex yu dul jeex Cheikh Otiel tam kazalika nuuru waaye ànd ak lii yëpp nit ñi dafa mel ne rek dafa bàyyi bàyyi la bàyyi jàngale woon te bàyyi waxoon na ne man sama jàngale yi sama lii may bind moo yoon yi ngeen di jaar su ngeen bëggee xam sama fay bi فإنما لحل الأمر بالأمن طريقة لإدراك الفيضين دون هبوط سابق ولا بد من حفظ ما يصدر منا منا من الوصايا ومن من الوصايا نظما ونثما فك لدين من شيء من كان ولا أي وي موي باي من يركوي مكان بيتدو كفك جميل واي كفك دليل مو سنة أوتي كفك سنة أوتي لبنان kon saaral bu métti réer bu métti ñi lii la ko lii ko indi ndaw yooyu ñu jàppoon ay yàlla yéen ñëpp jàng ngeen ci alxuraan ne yàlla dana ca layabu Isa ëllëg yàlla di lay ko ne ko a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummi ilaahayni min duunillah waaw yow Isa yow yaa wax say gaay say taalibe ni leen nañ la def yàlla yow ak sa yaay ma ñu bàyyi ma man yàlla Isa ne wallaahi yàlla xam nga ne waxuma ko ما قلت لهم إلا ما أمرتني فإن قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يلا خمد قل نسوفك ما هو خمد نخمد إنك تمن تمن قوم إنك تيوم كن يلا ورنا اللور وهم كي أنجي ودي ده ما جي ودي ده رأسي وقتاول يوم مش القرآن نه منك أو جنجل أو أو أو جنجل لو يلا بايو بقول لك يوم القيامة أي نسمن يوم أملاي lay wa Isa ëllëg ca àllaaxira yàlla indi ko fii ci àdduna ndax nit ñi mën caa jàngee bañ a def ndaw yàlla yi bañ a def ay yàlla yàlla wax ne man masih ibnu maryama illa rasulun qad xalat min qablihi min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kaana yakulani taam انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون يالله مني مال مسيح ابن مريم عيسى ابن مريم نكو لوتو اب يونتو نكو لوتو اب يونتو كوم يونتو يكو جيتور وامه صديقه يا تدبلور كان ياكل لي طعام نيوم يا دني دال لك نيوم فلا نغال بو سات في نيوم يا دني دال لك نيوم باي مني كغيرهما من الحيوانات ومن اكل الطعام لا ومن اكل الطعام لا يكون الهه لتركبه وضعفه مما يلشا منه بامري دنجا لك ينقل ينن ملايين كم من كغيره من الحيوانات كغيرهما من الحيوانات ومن اكل الطعام لا يملك الى ما يملك لك يمنا منونك يا الله وحسب لك يمنا منفرج دون يا الله منفرج كن ستار بيك يا البني ما يا الله كن نكور اسكدام دفع دفع الله wala ka wax ndax moom la a kaddu bi kon kaddu kan la kaddu ma yàlla ci yàlla rek la dagal ne kon ku xas ba lekk ñam mootoo nekk yàlla ndax la la cay jógee ci ñam ak faiblesse su doomu aadama waaye moom moo tax mu ni nit mën ta nekk yàlla bàyyi ma ne yàlla mu ne undur kayfa nubayyinu lahum al ayat xoolal ni ma leen di leeral samay aaya bàyyi mu ne كي انظر كيف يبين الله وحدانيته بقوله كان ياكلان الطعام من اكل الطعام فلا بد ان يتغوط وهذا لا يليق بجانب الله سبحانه وتعالى بابر كيف يقول لك يا مونا كدم دوش تلو دفاي تلو يلو الله سبحان الله بابا انظر كيف يبين الله وحداني دو خلو اني يالا دي جنجل اكن نم خلو اني يالا دي جنجل من كيف يقول لك نم منو نك دم بوس تلولو يالو تي يالا يالا منو خلو اني بلان لاري آي وي انظر انا يوفقور خلو اني سب بيت بيت فن دي وقت لو أموت لي نجنجل بلان تفسير شبراهيم باي دي لاري لاي كل بيت جعل بقولك بيت جوار بين جعل بولير نين من عيسى وهذا عيسى ابن مريم ظل الفريق في حق عيسى اليهود والنصارى اليهود فرقوا في حقه حتى جعلوه ولد ولدتنا وأمه ثانية والنصارى رفعوه فوق قدره حتى جعلوه إلها أو حتى جعلوه ابن الله أو الله وهذا عارض الله في كل خليفة laa budda min ifraat wa tafriit xaayida bàyyi ma bàyyi moom li bàyyi ko mun bi ñu ci a bàyyi ma li daal gaa yi Isaa la boo xam dana daal bépp ndaw bu yàlla yónni dana am ñu ci ëppal dana am ñu manqué waaw léegi ñu ne bàyyi ëppal gi mooy la mu ëppal gi mooy nga def ko yàlla waaw ñi jàpp bàyyi def ko yàlla est-ce bal ñu ootee seen bopp sax def seen bopp yàlla jël ab far est-ce ña manquel nag mooy ña koy ŋaññi di ko saaga ñoo ñooy ñu manquel ñi nekk ci njub nag mooy ña ko def jaamam yàlla te topp lam oote kon ñetti kuréel yi ñoo ci génne ña ko def jaamam yàlla topp lam jàngale ñoo ñoo ñu nekk ci njub waaye ñoo ëpp def ko yàlla ñoo dañoo taag bàyyi ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm ku def bàyyi mooy ku mu def yàlla safara nga jëm ku def Cheikh Tidiane yàlla safara nga jëm ku def Ibrahima Muhammad yàlla safara nga jëm bàyyi boobu jàngale bu leen nañ écrit noir sur blanc mu nekk jàngali weer nañ waaye xoolal réew yëpp texte yaa ngi leer bu dee nit ñaa ngi tarxiis kon may yàlla gi li ñu war a mooy lan bàyyi wax ci wax ci leer nañ ci chef di wax ci wax ci leer nañ du jërë ma ciy guddal sëriñ bi suñu ñu ñàkk mu yegg ca maa ngi guddal te waxtaan bi sëriñ bi la ñu ngi ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah macha